رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen suñu xadisu tey xadisu abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu anhuma qaala farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitri saaan min tamr wa saaan min shaciir aw saaan min min shaciir ala alabdi walxur والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة حديث بمن صحيح الإمام البخاري xadis bi xadis bu màgg la boo xam ni kenn ci saxaaba yi doon nekk ak yonente bi alayhi salatu wasalaam te abdullah bin omar moo nettali yonente bi alayhi salatu wasalaam lu mu digle ci koor bi loo xam ne zakat lañ ko tuddee muy azaka joo xam ne dafa dafa nekk lu ànd ak woor liñ ci jublu mooy réparé yi nga xamante ni nekk na ay rëq-rëq ak ay rëcc-rëcc ci kooru jaam bi waaye tamit jàppale ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci ay jafe-jafe ba amuñu lu ñu dundee bu koor gi jeexee ñu mën leen a jox loo xam ne dinañ ci mën a dund mën a yonente bi alayhi salatu dafa farataaloon loolu nga xamante ni moom lañ tuddee muurum koor muy zakatul fitr mu nekk saa min tamr aw min sha'ir mooy ne ñeenti tibb muy ñaari tibbi loxo yoo xam ne dañ koo boole loxo yu diggi doomu ñu tibb ko ci dund ñeenti yoon mu tudd fii ñaari xeeti lekk yoo xam ne moo gënoon a siiw ci seen jamono moo tax ci yenn riwaayaat min am la wax muy ne ci dund gi nga xam ne moom la ñuy dundee lañ koy jël ñu ko daan tibb ci lu mel ne tàndarma wala ci mel ne xeetu pepp yi nga xam ne moom lañ daan dundee pepp yooyu ñun suñ jamono li ci gën a siiw mooy lu mel ne ceeb waaye lu xeetoog ceeb ci ay bleek yeneen ay baseek yeneen xeet yi nga xamante ni yëpp nit ñi dañ koy dundee ba ci mboq yooyu tamit mën nañ ko cee génne kon dañ koy génne ci dund gi nga xam ne moom la nit ñi di dundee mu ci ñam bi nga xam ne moom la nit ñi di dundee benn bopp bu nekk benn nit bu nekk ñu génneel ko ñeenti tibbi loxo ñaari loxo yu ñu boole ñu ko tuddee saa ñu joxeel ko ko balaa balaa nit ñi di julli ji ci bisu kori ci bisu kori gi bu nit ki génnee ko ñaari fan comme ni ko alimaam Malik rahimahullah waxee ne ci itam jamono as salaf daan nañ wax ne nit ki mën na koo génnee ñaari fan laata ñuy korite wala benn fan wala buñ ne suba la waaye li gën mooy nit ki xaar ba ci bis bi bisu korite gi ci suba gi buy génn di dem di julli ji wala balaa muy dem di julli ji mu génne ko joxe ko te bañ a xaar bañ julli ba pare mu koy soo ko joxe ndax bu boobaa ab sarax lay doon rek waaye dootul nekk muurum koor bi nga xam ne moom lañ la digaloon yenn ci boroomi xam-xam wax nañ ne tamit nit mën na koo génne ci xaalis muy mu def jël équivalence am évaluer ko ci xaalis génne ko ndax ñoom dañ xool jubluwaay bi lañ xool defuñu fixation ci jëmmi dund gi ci boppam waaye dañu xool ne bu jàppandee ci nit ki mu xool ko ci xaalis génne ko loolu xëy na mooy ëppal njariñ ki mu koy jox ñu gis ne xëy na kon jëmmi ñam bi ci boppam laysa maqsuudan li daatihi mooy jëmmi ñam bi joxe ko nekkul jubluwaayu lislaam lislaam jubluwaayam mooy li mu waxoon ne dafay laabal ki nga xam ne moom moo doon fóot waaye tamit dafay dundal ki nga xamante ne bi moom mooy ki ñàkk ñu jàpp ne jubluwaay boobu war na mën a amee ci xaalis tam ñoom ñu daal di xool foofu ñu ne kon nit ki mën na koo def ñenn ci ñoom gën a xaw a moytundi ko tuuti gën a prudent ñu ne comme daal gis nañ ni yonent bi alayhi salatu wasalam ci jamonoom amoon na xaalis te gisuñu ko mu ko daan digle ci xaalis ci ñam la ko daan digle xëy na loolu tamit xool di gën a oyof comme lu ñëpp di defandoo moo taxoon mu ko daan def nañ rek continuer di ko génne ci xaa ci ñam loolu nekk loo xam ne xëy na moo gën a mucc kon loolu zakatul fitr la tudd nekk murum koor boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalam daf ko waraloon ne nit ki na ko génneel boppam génneel ko njabootam ñi nga xamante ne bi ci xale yi nekk guñ ñuy woor ba ci sax xale yi nga xamante ni ne nañu Ousmane Ibn Affan daan na ko génneel sax ku ëmb loolu lu gën la waaye nekkul lu war ñi nga xamante ni bi ci kër gi wooraguñu wala xale boo xamante ni sax mi ngi ci biir ndayam juddoogul nit ki laal ko muurum koor loolu lu baax la ndax saxaaba yi daan nañ ko def waaye nekkul lu war ci ñi mu war daal mooy ñi nga xamante ni dund kër gi ci la ñuy dund nit ki moom moo leen di dundal muy njabootam ba pare nekk ñuy woor ñooñu war na ci moom mu génneel boppam muurum koor waaye génne waa leen leen tamit muurum koor kon loolu ci njeexitalu koor gi ñu bàyyi ci xel bu baax ci jaamu yàlla gi ñu def ni la bokk bi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen wasalaamu aleykum wa rahmatullah su ci diggante bi ba mu tàmbalewaat koor dafay yeesalaat yéene bi wa sallam pour mu jàngal leen ci alquran de plus. dañuy jàng siira mbokk mi ndax mooy jaar jaari sunu yonente bi yàlla yónni ci ñun. téere bi di lumaatul itiqaad alhaadi ila sabili rachad téere la boo xamante ni comme ni nga gisee tur.